ñu ngi nekk 703 délégués de quartier yi nga xam ne moo composé 16 commune dans le département di wax ak réew mi di waxtaan ak suñu kilifa son excellence monsieur le président de la république du Sénégal Macky Sall ci mbir mi nga xam ne dafa xew ci Pikine ndax ku nekk xam nga ne armée li Pikine yi fees na feesaay goo xam ne ëpp na benn bàmmeel boo xam ne dañ ciy def ay juróomi nit ay juróom-benn nit te loolu dal commune bu pikin muy armeel nationale yi moo dal yeneen communes yi comme la commune de Mbao dal commune u Thiaroye Gare dal commune u Diamaguène Sicap Mbao dal commune u Pikine dal commune u Malika dal commune u Yeumbeul Sud dal commune yembal Yeumbeul kon moo dal commune moo dal département bi yëpp kon su monsieur Abdoulaye Timbo maire de la ville di ci waxtaan ak président de la république xam ne lii kat lu population Pikine bëgg la comme ni ñu bëggee jàkka comme ni ñu bëggee kër comme ni ñu bëggee seem comme ni ñu bëggee stade comme ni ñu bëggee leneen noonu la ñu bëggee ay armel parce que kon ku nekk bëgg nga sooy dund ci sa kër ci teddange soo deeyee tamit ñu suul la foo xam ne teddange lay doon kon su président de la république waxtaanee ak le maire Abdoulaye Timbo ci volonté am volonté politique am nga xam ne population am lay déglu ba war ñoo jox ci biir foore bu mbaaw sept quatre-vingts hectares yoo xam ne mu ngi nekk ci biir forêt bu mbaaw président de la république dindi ci dix hectares pour affecter que population bu Pikine dama wax ne loolu jaadu naan defe naa ne loolu rafet na kon ñun dañuy wax ak président de la république ñun délégué des quartiers yi nga xam ne ñoo ëmb seize communes yi nekk sept cent trois population bi ci quartier yi lañ dëkk bés bu set nit ñaa ngi dee ñuy dem di suuli suñu ko yëgee ak suñu ko yëgul kon bëgg nañu ay armel yoo xam ne bu ñu génne àddina foofu lañ ñuy denc loolu nag am na ci arméeli catholique même arméeli musulman yi am fii ci biir foore bu mbaaw président dig ñu ko nangul ko le maire Abdoulaye Timbo affecté ñu dix hectares ñu ngi koy encouragé di encouragé tamit mboolem ministre yi nga xam ne ñoo ci jàpp ba président mën ñu affecté hectares yooyu ci biir foore bi ndax kat defuñu ko ay kër ñi koy toppatoo du ñoom seen bopp lañ koy toppatool mais population bu Pikine lañ koy toppatool mooy que ñu jox ñu dix hectares yi nga xam ne moom la am ci biir forêt bu mbaaw pour que ñu mën ko def ay cimetières musulmans et chrétiens def ci mosquée def ci morgue def ci parking boo xamante ni ci la ñuy gaare loolu defe naa lu jaadu la président ñu ngi lay encouragé ñu ngi lay encouragé ci décret bii nga def ko affecté ko pré affecté ko le maire Abdoulaye Timbo ñu ngi la ci encouragé ñu ngi la ciy encouragé di la ñaanal di la ñaanal di wax ne li ñu wax léegi ci biir nit ñi lépp lu ñu mas a jàmbat ci biir pikin yow président de la république def nga ci satisfaction bu mat sëkk kon ñu ngi la ci xaar pour lii nag ñu mën ka agale ñu def ko loolu daal lañ fi amoon pour daje tey délégué de quartier yëpp daje nag ñëpp ànd daje tous les délégués de quartier dañ ko mënul lim benn par benn mais tous les délégués de daje nañu fi ànd ci bii kaddu mooy que nañ ñu bàyyi ak suñu dix hectares yi nga xam ne moom la ñu président de la république jox ñu def ko ay cimetière loolu daal lañ ci amoon lu ñuy wax